asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV nuyu naa leen ziar leen ñaanal leen jàmm sàkku ko ci yéen tey nag ñu ngi àjjuma àjjuma bi ñu nekk nag mu ngi tombeek le 10 septembre 2021 li ñuy def mooy balu leen àq bal leen àq waaye nag dañ leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indil tey si àjjuma ji moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 10 septembre 2021 dañ ñëw kin ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag moom tey kamuñu xëy wan wala ñamuñu xëy wan mooy Zil Balde ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni ki nag ginnaaw dubalees ba mu fi jógee nag Zil Balde tey moom la yëglikaay bi xëy dalal mu xëy nag di wax ci ay secret wala wax yu mujj yoo xam ne daal dubalees dénk na ko ko di ay ndénkaane ca lalu hôpitalam balaa mu wuyu ji boromam Zil daal xëy na tey dikk ci loolu lu yaatoo yaatoo yaatu Ama Balde tamit ma nga xam ne war na bëri ak Modou Lo zil ne na daal bu yeboo xaar ko ndax balaa noo dem ca màggal Touba ga ne na ama moom dina ñu ñëw fii nga xam ne moom moo ci ci réewum Sénégal yëglikaay bi tey moom moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki non non mu mel ni ki ba tey bu nu continuer ka nga xam ne nii tamit moo di bàll ak way juram ma nga xam ne moo di dubalees daal yëglikaay bi xëy na tey wanaat ñu leen ci aw photo woo xam ne wu daw yaram la ndax ñoom ñaar ñëpp ku ci na yaa nga bëgg bay reetaan yëglikaay bi nag moom daa moo dalal bàll bàll nag di net li daal dernière instant ya wala boog mujj saaya nga xam ne dund na ko papaam ak moom ñu waxante ko loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii moom maanaam ba mbir ma amee muy way juru Balla ba mu génnee àddina muy ministre de sport Matar Ba démb nag dem na ca kër Balla ga ca maris daal dal di ko jaale way juram yóbbul ko njaal moo xam ne tamit yëglikaay bi nee nañu daal ca xaalis boo ko xaymaa toll na ci juróomi million yoo xam ne daal jox nañ ko ka nga xam ne moo di Balla Gaye jaalee ko way juram mu nga xam ne génn na àddina mel ni ki nag ñu ca moom ma nga xam ne nii moo di Balla keneen koo xam ne adversaire am la ci lamb di Modou Lo tamit démb ànd ak délégation ñoom Biram Ñinga ñoom ñoom Ibou Laye ak ñoom Xaadim Gadiaga dem dem fa nga xam ne moo di ca golf jaale ka nga xam ne moo di bàll way juram wala loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu ko wax waaye moodu tamit yëglekaay ba ñëw na dinu xam ne daal moodu ca kigali ga nga xam ne fa la nekkoon àndoon ak waa basket ba daal moodu ba ñu ko laajee ci wàllum entraînement daal moodu nee na ay supporteram na seenum xel dal ndax moom jàpp na ne entraînement du am combat kese moo koy booleeg entraînement saa yu ne mu ngi entraîné muy guddi muy bëccëg moom daal fi mu nekk nii day taxaw di jatu saa su ne ni soccet rek entraînement daal moom ci lay xëy ca lay gont yëglikaay ba moo xëy wax lu mel ni ki noonu keneen xam ne bëri na ak Moodu na tey toppal ñu écrim muy tay nga ba ma seen nekk écrit ba nag ren boo bëggee dégg dëgg daal seeni mbir lenn lu ca leer amu ca wala nan taxawee baaxul ndax sunu làmb nee na trois victoire la am am lu toll ci six défaites yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ñëw na tamit ca làmbi simple ja mu mel ni ki nag ñetti mbër yoo xam xam ne ni daal ren moom saison bi neex na ba yegg lool ci ñoom muy Serigne Ndiaye numéro 2 Doudou Sané ak Fara yëglikaay bi xay na ma na ñoom ñaar la ñu gañe ci ab xaalis mu toll ci dix-neuf millions quatre cent mille francs CFA yëglekaay baa xëy tey ñëw dinu wax loolu ndax ne na bu dee diiru Doudou Sané la am na lu toll ci six millions six millions deux cent vingt mille francs CFA ak ñaari oto gagné na ko Serigne Ndiaye numéro deux am lu toll ci six millions huit cent mille francs ak benn oto bu dee franc am lu toll ci six millions neuf cent mille francs CFA yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee fa ñuy dem moo di les arènes les arènes moom que xëy dalal mooy Ibou Ndiaye ñoxo baay micro central ba ca làmb ja que mu xëy di dànkaafu nag moo di tafaatin nee na ko daal li am ba des moom jàppal la sa a fort wala nga gën koo aay Ibou Ndiaye nee na ko defal ndànk na nga tey bu baax a baax ca ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom moo di Boy Niang yëglikaay bi moo xëy tey dalal ko mu wax ci lu yaatoo yaatu ba tey Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi tamit yemut ca loola ba mu génne ca loola nag ñëw na ci tafaatin la mu xam ne nag daa jàpp na tafaatin moom ci wàllum làmb de ca am retard maanaam daar tardé la ca def Siteu ak Papa Sow moom la mu gis moom Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi dañ leen a war a dédommagé maanaam ndàmp leen daal lañ leen war defal Lac de Guiers numéro 2 Balla Gaye numéro 2 faiseur de retraité maanaam daal ñoom ñaar bu bëggee dégg dëgg daal aay nañ ci retraité yi doon wala ñuy waaj dem retraite moo xam Yékini la moo xam Tapha Guèye la yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu Ambroise Sarr entraîneur national mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii daal am la muy waajal ba jël na nag ab liste boo xam ne daal toll na ci vingt ñaar fukki litre daal jox leen ña nga xam ne ñoom ñooy waa direction technique nationale yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax loolu moom les arènes ba tey bu nu continuer les arènes tamit am na koo xam ne mu nga fa di metti lu la ko dal mu yii daal ñi ngi ma nga xam ne daal tournoi ba nga xam ne moom la commencé woon di ko tëgg ba ñu war a yegg ca combat finale daal mel ni ki nag mbir ma ak jaxasoo da caa am wala beneen promoteur ñëw na jël caatu daaw dafaal jox ko kaaw gurde nangu ko ci loxo yi daali i daali nag mbir mooma naqari na ko ba yegg ca lool wax keneen koo xam ne nii moom lañ ko def aw naqar am na ko ca waaye ña ko naqar lu bëri na muy jamaykee yëglikaay bi li les moo nu xëy dikkal ci bérafia dina ko wax otoom daal la ñu fekk mu gaare ay nit jël ay xeer maanaam lu ñu mën a def daal tojate oto ba yàqu ko ba mu yàqutu lool lool mu mel ni kii nag loola daal la ñu def jamaykeen waaye ñoom ña ko def dama naan daal maanaam li olof di wax rek soxor moom daa tardé ndax yow mi mën a fekk oto jàmbur mu jënd ko gaare ko nga jël ay xeer di ko toj defe naa effort ya nga def ba ami xeer boo ko defoon ci effort mën naa am sax nga am lu raw 4-4 mën naa am sax nga am jet privé kon gars yi nanu fóotaat suñu xol yi yéeneen te jàmm jamay kay xale la day liggéey am na droit am oto yow mi ko mere bu dee danga koo mere demal ci moom wax xolam la def moo gën nga koy yàqal waaye nag yéen ñi ko def ngeen yaakaar ne raw ngeen la ci kanam rawu li bët ndax gendarmerie police moom bu Sénégal bii nu ne enquête ñoo ma ci doy te am naa yàqin ne balaa yàgg yéen ñi def loolu des na leen teg loxo te bu keroogee nag rëccu mën na leen cee fekk jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey suñu làmb les arènes li ñu xëy tey andil ñu ko ci ay xibaaru làmb mu mel ni kii nag ñaari journaux yooyu ñoom ñoom fii journaux yi nga xam ne ñooy def làmb cent pour cent moo tax lépp lu xew ci làmb rek dañ ñu koy indil waaye nag balaa ñoo sore rek dañ leen di baalu àq bu baax a baax a baax fi ñu tëjee nag fa la ñuy commencé maanaam acte bi nga xam ne gis nañ les arènes bind ko même suñu lamb sax bind na ko muy acte bu ñaaw a ñaaw a ñaaw jamaïcain di suñu rakk di suñu xarit gaare otoom ay nit fekk oto ba yàqate ko sakaase ko toj ko nu mu leen neexee waaye defe naa loolu ci ñàkk amum xel la bokk rek ndax soxor ki ñaan baaxul gars yi nañu fóot xol yi yéneen te jàmm ku nekk la mu nekk nañ ko ko yéene te nit ku ne nag hmm, teraanga yàlla moo koy joxe yaa ngi dégg te ku yàgg kër yi yàgg yëngutu ah bu yàggee danga am dara jamaykee yaa xam naa ko bu baax yàgg naa yëngutu yàgg soon kon defe naa mérito na sax plus de lu ëpp oto parce que nit la te matériel lu mu met lu mu seer seer ak lu mu foor foor nit moo koy am mais mën te jënd nit kon loolu nañ ci bàyyi xel yéen ñi ko def nag euh, xaw ma lu ngeen ci jublu waaye jaru koon ko de te rëccu mën na leen cee fekk foofu la ñuy ubbee bu ñu continuer nag tey sunu làmb la ñuy xë jëkki xët bu njëkku yëglikaay bi gis ngeen noonu Zil taxaw ak Balla Gaye loolu nag daa mel ci préparation combat la ci entraînement photo woowu ngeen di gis waaye Zil nag moo xëy di wax ndax Zil Bal de ak Balla gay ku leen wax di nga ne Double ne Fallaye yal na leen yàlla yërëm ñoom ñaar muy Less ak Fallaye ak bépp jullit bi tëdd ci suuf Zil moo xëy di wax ci li nga xam ne nii moom la ko Double Less mujj a wax bi mu tëddee ca loolu maanaam ay ndénkaane mel ni kon ça veut dire kon famille boobu benn famille bi ndax am na foo xam ne bu fu nit tolloo ci wéradi ña koy jegeñ mooy ña ko sës kese kese kese kese mais du ñëpp a ko mën a tey gis kon defe naa ne zil a xaw ma daal ndénkaane bi moom xam naa ne loo ci mën a dégg tey yàlla dogal na ne ah lu man a xew yaay kilifa ñu ci ñoom Balla di kilifa ci ñoom Ama ak yooyu a yàlla na la yàlla dimbali nag may la kàttan ba nga mën leen a taxaw na leen bàyyi taxawoon loolu lañ lay ñaanal parce que tamit zil bëri na ba bàyyi bëri waaye itam gis nañ ne dëgg yàlla day sonn ci ñi nga xam ne ni ñoom la yore loolu la ñu gis ci suñu ay bët ñu koy nuyu moom suñu ñu des fois nag ñu daje ci làmb ji xaw a kaf ni foore parce que borom mbaax la et puis taalibe la beneen bi ci des mooy euh, ki nga xam ne moo di zil ba tey wax na ci Ama Balde nee na Ama incha allahu rabbi dina ñib si balaa màggal ah waaw loolu daal loo ci mën a dégg moom combat moom mu ngi am di ñëw ndax moo de décembre la soreetul leneen loo xam ne tamit bala gay 2 maanaam yëglikaay bi ñëw na ci Balla lu mu wax maanaam wax yi ko wéy juróom mujj wax ci maanaam hmm, relation bi ah waaw seen dernière wax ay yu me muy ay nett yoo xam ne yu méttee métti la ngeen gis photo bi noonu lees ak Balla muy lu daw a daw yaram waaye àddinaa ngi noonu demal maa ngi ñëw la woykat bu mag ba war na ko Papa Thione yàlla na ko yàlla yaram waaw noonu na sax yi ci biir suuf xanaa duñu woor wallaay duñu woor amuñu congé parce que chaque jour rek a jëfee rek ñu yóbbu kenn waaye loolooy àddina mais ku dem yàlla na la yàlla jégal te xaree aljana barke yonent bi mu mel ni mbir moomu tamit bi mu dalee Balla Balla wéetu ci ndax ñëpp ñi nga xam ne tey ñoom ñooy peuple sénégalais bi ah du ma ne sa askanu am mais peuple sénégalais yëpp delloo nañ ko njukkal buñ ko waxee nag en commençant par le président de la république ndax démb yebal na fa ministre de sport am muy monsieur Matar Ba mu dem këru Balla ga ca Maris jaale ko rafet yëkkati xaalis jox ko te xaalis ba sax du nekkul mooy li am importance mais la fet que nit ki am naqar rek nga yëg ko ba mu jaral la nga wax ci ndax wax na ci moom président Macky Sall yëkkatiwaat ministre di yónnee ko fa loolu rek de sa bu rafet la te itam yëg la waaw ndax nit ki euh, xaalis jëndul nit mais li am solo mooy yëgante te yàlla tax ton Matar Ba tamit ne nit nekk nit ki nga xam ne wax dëgg yàlla ñun li ñu xam ci moom lañ mën waxa nit ministre bu ko gën a disponible Sénégal gisuma ko moom disponibilité accès ci Matar Ba bëriwul ministre bu ko ëpp ko ëppalee wala dama ko sax gisul fii Sénégal loolu moom mooy li am rawatina sport bi ñu ne rawatina làmb ji nga xam ne ci lañ di ko dund ak moom. muy seste bu rafet mu Lo tamit bu ngeen demee Equivox gis ngeen fa vidéo yi gis ngeen ko. feneen ak feneen ba ci sunu làmb ñëpp ñëw nañ ci les arènes démb dem na jaale ji ko parce que moom nekku fi woon mu ngi woon Rwanda parce que Modou Lo ku ne xam na ne day dund basket ndax li tax mooy daf ci am ay xarit ci équipe nationale rawatina capitaine bi Youssou Ndoye xaritam la de a Diop xaritam la ak ñoom góor gi si jëng ñoo ñëpp ay nitam lañ moo tax nag ndeysaan ah, en tant que sénégalais mu soloon dàllam ànd ak ñoom Kigali ba yàlla dogal ñu éliminer leen bërki dem ci guddi la ñëw bët set mu def délégation ànd ak ñoom biram ñi xaadim nga jagaak ay xaritam yëpp ñëw jaale si Modou ah muy sest boo xam ne sest bu rafet a rafet a rafet la Sénégal yëpp a ko rafet la dafa naa dem wax jafa jib ku ko dégg xam ne ñoom ñaar du ñu ay ennemis c'est des ad maanaam c'est des adversaires pour benn waxtu wala benn heure wala ay fan mais bu jeexee day jeex parce que li tax mooy Modou nee na bil wallahi Balla jàmm rek laa ko yéene te mooy li am Balla tamit nee na nit ku fidèle la ndax ña ma ko xameloon dem ba tey ñoom laa gis ñu koy topp ca mbapat ba nii muy ñoom Papis ñoom Ibulaay ñoom Serigne Ndiaye ñoom Baba ñooñu rek ngay gis ñoom Demba xarañlu ñooñu rek ngay gis ak Moodu te loolu fidélité moo ko indi balaa ko seddal loolu démb yemu ca ne na dañuy déggante kon gars yi mais nag sport bu taxawee enjeu day am xëccoo day am te itam ñoom ñaar seen làmb jeexagula ah ndax xam naa faw ñu bëri ñetteelu ko combat du mën a ñàkk waaw waaye dem daal leem rafet na ba mu pare tamit gis ngeen beneen vidéo dem na ba ci wayjuru Balla bu jigéen hmm? dem fekk ko fa mu nekk mu jaare ko bokk ak moom mettit ba muy lu rafet rafet rafet loolu di lu ama am solo taay si nga doxle wu ñu ren waaw boo xoolee ah 3 victoire 6 défaites ëmma seen segri ba doxul de waaye 19 millions yu tegal weccet ah 19 millions yu tegal 400 000 francs entre Doudou Sané Serigne Ndiaye deux francs ñoo ko séddoo ren ci làmbi simple ji kon ñooñu moom ren daa mel ni seen i mbir dox na loolu la waaye mën a wax moom doxle nañu les arènes moom ñëw na tamit ci ka nga xam ne moom mooy suñu papa Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi dalal na ko nee na nag ah tafaatin na dal nee na ko teyal ci booy ñang de waaw nee na ko booy ñang daal nekk da ko koo gën a garaaw wala da nga koo gën a ay loolu moom ay waxam la sunu papa yi bu njaay ñoo ko bàyyi parce que mag la mu fi yàgg macha na gën a gudd fan kon defe itam parce que nag mbër bu lekkee sa avance waxam jooju jar naa bàyyi xel ñeme na la te booy ñang du mbër mu ndaw am na encadrement te mentalement il est fort techniquement il est fort kon defe naa adversaire de taille la Tapha Tine am ku buñ ne la yaa ko sut yaa ko ëpp doole ah jar naa tey de ndax góor bu toll ne yow di peser plus de cent kilos wala cent kilos di entraîner di xale macha allah jar na bàyyi xel kon loolu góor gi wax jar na bàyyi xel ba tey bu nu continuer lakk ak Balla Gaye 2 moom itam daa mel ni daal ay nañ ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ah mooy gars yi def retraite ak yooyu loolu yëglikaay baa ñu ko wax ba tey Ambroise Sarr itam envoyé na fa nga xam ne ni moom moo di ca direction technique nationale ba 20 litres yëglikaay di ñu ko wax waaw ne ni tey moo fi dikkoon ci les arènes yi ba si Lit TV parce que euh, yaakaar naa ne euh, vidéo Matar ba boobu dem Lit TV di nga ko fa fekk waaye vidéo Modou Lo ba tamit ku dem Equivox di ko fa fekk mel ni kon daal loolu démb bokk na ci li nga xam ne ni moom moo amoon ci journée bi i daal ñi ngi tamit la mu wax di ko mettitlu ah doy na waar xaw ma nag mbir mi mënu mu mën demee waaw waaye moom su ma jumul cité na assise ne lu am moom la waaye li am solo rek mooy mooy ku ma leen doon wax rek nañuy waxtaan nañuy jiital suñu bopp waxtaan et puis di dimbalante waaye buñ dee def ku jekku sa morom rek wan ko ko du sotti de waaw du sotti il fallait que ñuy dimbalante idaal yi jeune la bu ñëw ci làmba di nekkoon amateur ma xam ko bu yàgg muy supporter nekk amateur di dagg biyam di ñëw bu demee tey ba euh, di jël as koomam ak nu lu ko laay dimbalee muy tëggalaam di produire ay mbër wax dëgg yàlla ba toll fii ci tournoi man pour man li xel gënoon nangu mooy ñu bàyyi ko mu yeggale tournoi bu jaree sax jàppale ku ko mën a jàppale nga jàppale ko man loolu laa gisoon waaye nag ku nekk ak ni ngay gis ak ni ngay doxale di balu ñëpp wax di ñaanal ñëpp jàmm si ajuma ji di wax ka ni Sénégal yal na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daal di wax ne ñi toj oto jamaïcain bii day de tooñ nañ de te ñoom xalaat naa bu jekkoon jamay kee xal est ce que duñ ko faat ndax ku mën a fekk soto mu gaare mu toj ko kay bu la jeg ko dina la faat waaye wallaay da ngeen a xamul ne soxor daa tardé iñaan baaxul waaw yàlla nañu yàlla musal ci xol kiñaan ñaan waykat ba noonu dina lokk dina lekk borom ba mu jeex du ci man dara parce que chaque jour dangay am lu la metti di gis borom di belli yow ngay ne ci ay jafe-jafe di xam nga di mer rek di mer rek di mer di mer di mer di mer fa ngay mujj moo yor ay xeer di toj otoy jaambur wala ngay saaka di xasaate yooyu amul sens kon gaa yi yàlla nañu yàlla defal jàmm di leen jox dig daje beneen yoon incha allahu yi